je vais m'approcher. dawal xool lu ko de

ñu ngi si deux pour cent moom nga tegg rof de Samsung Samsung ñaari téléphone laa yóbbaale techno bu mag Samsung bi dugut bi dama ko def dama ko amul amutoon correction ba mu koy balance amutoon correction barki Sëriñ Tuubaa fekk ma ci correction billahi maa ko lancé caméra dama koy filmé bu dikkee mën na koy filmé bu dikkee bee laa ciy teg bu dikkee bee laa ciy teg sa kii nu tubaab techno bi déedéet techno bi laay filmé waaw mu balaa kii ñëw dina mu dara day chargé waaw. billaay walaay bi ma njëkk man laa waaw sax bi am na projet nag gis naa ko bu ko doon lancé fee bu ko doon lancé fee nag bu ko lancé fee nag non xeex boobu dañ dañu mën fa dem de xeex boobu xeex xeex kii de moi aussi ñoo am

possibilité ñëw ci bu fekkee seen jot may na leen ko mën ngeen ñëw mun ngeen ñëw seetaan si mun ngeen ñëw déglu si li nga xamante ne moom moo fa war a ami mais it woowuñu kenn ci taal woowuñu kenn ci xulo woowuñu kenn ci yàq kon mu doon ay kaddu yoo xamante ne si à saluer ndax si loolu la ñuy xaar yi nga xamante ñoom ñoo ñaan yàlla jiite li nga xamante ne ñoom ñooy